noonu lay demee ay bés yu ne intersyndical bi nag nee daal ba ñuy waxtaan ak premier ministre bii di Ousmane Sonko ba tey France daal di xiddeen waxtaan woowee juragul dara Ndiaga Diop yor seen i kàddu ci micro Ibrahima Diame. ministre bi ba mu xamee ne xel ne. yi nga xam ne moom la liggéeykatu collectivité territoriale di xeex depuis boobu ba léegi euh, xeex bu bu jaadu la maanaam ay droit la légitimité euh, revendication bi léegi nag moom affiré woon na volonté maanaam waxoon na ne lu mu gën a gaawee n'est-ce pas gouvernement bi si ut saafara ci li nga xam ne dafa yàgg daanaka léegi mu mat ñaari at digoon nañu sax euh, premier ministre dinañu recevoir xam nga ci ci délai yu yu gàtt jusqu'à présent amuñu ci benn benn benn xibaar intersyndical nag ñu dégloo bu baax. base parce que woote woon nañu assemblée générale semaine dernière ñoom déglu nañ base bi base bi nag ñëpp prononcé nañu ah bi nee nañu reconduire de grève di ko renouveler semaine bu donc ñu ngi natt grève bi bi nga xam ne ni mooy commencé altine le ba àjjuma 3 avril sur toute l'étendue du territoire maanaam ci ci Sénégal yëpp. ñeneen ñi yow tey ca fajar wane seen naqar mooy ñay liggéeyee Dakar dem dikk ne tey bu kenn xalaat bus ndax ka fa ne tey di Ousmane Sylla moo ngi def lu ko neex ndax xam na dafa dal jóge ca société boobee di jël euh, ay nitam di leen fa tekk ci noo xam ne jaarewul yoon ñu ci nag o kilifa yi Marc Tendeng secrétaire général Union démocratique Ligue Dakar Dem Dikk ñu déglu ko. directeur général Ousmane Sylla bi mu xamee ne moom bientôt il va quitter l'entreprise mu daal di génne ay nomination abusive yu bari. yoo xam ne kenn mënul xam bopp bi ak bi ay nomination yoo xam ne teguñu ko ci benn critère teguñu ko ci compétence teguñu ko ci dara ndax dafa bëgg récompense ay ñu ñam balaa muy dem casé ay ñu ñam balaa muy dem parce que fii la jël ay xale yu ndaw au ñu liggéey ñu abandon dafi liggéey ba ay weer du ñu liggéey xale yooyu ko doon topp ci politique di caaxaan ak moom ñuy jàpp entreprise di ko caxat caxatee bi mu xamee ne mi ngi dem mu ne xaaral mu la ñu gis ne ci barki démb ba léegi ay note service di génn yu bari bari alors tey moom du am bus ci réseau bi tey incha allah bus mënul daw ci Dakar dem dem dañu gaare suñu bus yëpp wala suñu naqar su ko état ñëw atte ñu gën a gaawee tey jii lu ñu def nii ah lu ñu neex mais il fa que ñu def ko possible pour état mën a xam réellement ce qui se passe à Dakar dem dem ndax ñu mën ci ay dogal ñu mën a continuer à perpétuer le service public sans aucun inconvénient ñeenti simili moo dalu ci jooni tottu fi rajo bi ngeen tamuy RFM pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dëkkal nañu lañu doon tabax ca tefes gak band de filao Descos nag moom moo fa dem amal état des lieux ndax daal nañu fay dëkke ak nañu fay tabaxee moo doy waar mu doon daal loo xam ne ca corniche est ba ouest ba la colonel Sabouri Ndiaye directeur bu Descos nag ak contrôle occupation des sols daal ne dinañu jébbal ab rapport bu leer ñii di kilifa yi ngir daal ñu xool yëfi nan lay mujjee njëgloo ko ci téléphone beeg Ibrahima Diame. boo seetloo li ñu doon suñu kilifa dañu soxla lépp luy information ci corniche est ak corniche ouest ak euh, la bande de filao moo tax par mesure conservatoire ñu tàmbale liñ doon def ni gën ko accélérer pour que lépp luy tabax ci corniche yi nga xam ñoom laa cité ak la bande de filao ñu saytu ko xool ko ba xamaat exactement ña fa nekk li ñu fay def ak euh, ñan ñoo koy def ak euh, est-ce que méngoon ak li nga xamante ne moom la code de bu santaane ak la loi sur le domaine national boo seetloo construction yooyu bi ñu ko tàmbalee ak léegi am na ci bëri xam xool nañ ko sax mais comme euh, laaj na parfois ñuy xool di saytuwaat moo tax ñu duggaat sur le terrain euh, lancer équipe yëpp ci corniche yi ak euh, ci bande de pour que lépp lu fay tabax bu ñu tàmbalee ak bu ñu buy waaj a pare ñu xam exactement ndax liggéey méngoon ak li nga xamante ne moom lañu ñu waa woon. bi la fan ba fan exactement yan yan kii la. bon corniche ouest nag boo xoolee corniche yooyu moo commencé depuis Cap Manuel ba egg jaar Terrou-Bi euh, bi de la divinité niveau des Almadies mhm. jël place de la BCEAO wër Yoff euh, dem côté Diamalaye boo jëlee corniche est aussi mu ngi tàmbalee ci prison Cap Manuel jaar ci ginnaaw ambassade France. ok ci ginnaaw pale jaar port ensuite donc euh, dem ci plage bi donc loolu mooy corniche est mhm. la bande fi la mu ngi tàmbalee jàmmalaay romb dëkk yi nga xamante ne mooy géejewaay bi teewoon romb Malika bi teewoon pël donc euh, toute cette bande la lépp lu fa nekkee construit nga xamante ne tàmbale nañ ko dañ ko gën a saytu xool ba xam lan la kon loolu euh, ci ndigalu nguur gu bees gi la wala waaw loolu nag dem na suñuy contrôle bopp parce que dañuy fagaru pour ñu am lépp li nga xam mooy information soxla pour ñu jëbaleen ko des ba tey ci wàllu suuf Rufisque nag doxum ñaxtu ñi yëngu ci mbayub dër ca Lendeng ak askanu Kolobaan guy murit ngir daal wane seen i mbañ euh, ci ni ñu tegale ko seen i suuf soo see rawatina sax suuf suñu bayee euh, ñafa jaar nag la ñu wax daal di ay promoteur immobilier euh, dox ñaxtu nag ñi ko amal di kuréel bu boole ñi taxaw dal ngir aar seen i tool foofu ca Lendeng président ba papp Konaté ak Abdou Diouf Diagne. par benn lotissement boo xam ne moom la ki nga xam ne ni kilifa bi ñuy jiite moom la autorisé ba ñu gis fi benn station essence bu fi jib coow la la yëgoon nañ ko si ay maraîchers yi ñu jàppoon mais ñu xam ne ni ñoom amuñu affaire ak maraîchers yi population yi aujourd'hui ñoom ñooy défendre Lendek ay entreprise yoo xam ne ni ñoo ñuy lot Lendek moo fi nekk di tax ñun ñuy noyyi nit ñi ñu ci ginnaaw maanaam jaaykati suuf yi def seeni mbir ak seeni dil ba seddoo fi mu jëm mooy lenn rek mooy disparaître te loolu la bañ plus de deux mille et quelques emplois que soit direct wala indirect maanaam ñooñu la ñu bëgg ñu dem te ñooñu demuñu ci gaal yi defuñu naka su noonu te liggéey amul ci dëkk bi léegi nag ay nit ñoo xam ne ni ñàkkuñu dara jël loolu dugal seen poche bëgg a séddoo bu ñu waxee maanaam ay huit milliards wala dix milliards buñ ko xaymawee ci ñoom li ñu bëgg a séddoo parce que fii zone bu am valeur la ñu ne leen non ñun duñ ko nangu donc population bi tey ñoo jug nekkat ñun d'accorduñu leen di disparaître ñuy maire mi nga xam ne ni moom moo signé autorisation demandé wuñ ko sax dañ koy exiger mu retirer autorisation boobu mu sursoir ko bu ko dindee ba pare dañu bëgg a la décision du sous-préfet fi nekkoon moom mi nga xam ne ni président dafa def circulaire ne fii bu fi ko kenn laal askanu Silane naka noone ñoom it danañu taxaw ne du ñu teg loxo ci seen suuf soosee te sax mairie bee fa bëgg a jaar di mairie bu Ngongom euh, seen i manifeste nag ni ki démb tàngoon no jër ndax euh, way tax dara fa ñëw daal di ko tasaare leexal yekk bés bu tàngoon lool démb ak Babacar Diouf. jël gi ñu jël lu ëpp ñetti téeméeri hectare joxe ko ci lotissement bi nga xam ne moom lañ nar a dagg ci dëkk bi di silaan ak Mbari duñ ko bàyyi mu jàll lan wax. Mbay di wax ci seen ko ay lotissement jox ko ñeneen te ñun béykat yi suuf si soof suuf soosu la ñu yaakaar ginaaw ba nga xamante ne état dafa amoon lu mu dogaloon ci ginnaaw muy autoroute à bi suuf si ñu amoon autoroute boobu jël ko akas tuut li ñu dese ci dund di ci suturawu maire nag fas yéene ngoogom ak ni mu yaatoo mu bay ngoogom ci ginnaaw suuf soosu nga xamante ne moom la askan wi dese mu ñëw ne da koy dagg di ko jox ñeneen askan wi di ci xeex depuis ñaari at. askan wi taxaw temm ne maire Ngogom bii da leen bëgg a jaay doole te duñ ko nangu benn. barki démb maire ci wàllu boppam la mu waxoon mu ngi ci. nee na doomu aadama buy yeewoo ci Ngogom mënu koo tee dagg suuf si. looloo taxit mu yebal ay ay ay équipe mu ñëw dagg si suuf si. bañ ko yegee dem nañ ci moom. boo arme faaf na faa génn. kon jéyee waroon na am. loolu nag bi mu amee ñu doon xaar sous bi nga xamante ne moo interdire marche bii. génn taxaw ne ginnaaw jéyee dafa waroon am man kilifa gi interdire naa ne ñëpp taxaw ba ñu woote waxtaan loolu amul ñun ñu dugal suñu mars mu ne def koy interdire te xamuñu li tax mu interdire xopp nañ leen tiital nañ leen ci lu ne wante nee nañ day dund bàyyi benn yoon lotissement bi jàll seen responsabilité la ñun waa population Ngogom duñu ko seetaan tey duñu ko seetaan suba on ne peut pas nag nous priver de nos droits. ñoom nag ñu ngi woo président Diomaye Faye mu def li nga xamante ni mooy gëstu bu xóot ci suuf si ñu joxe. déggal kilifa yi nga xamante ne mu ñooy doog a jël nguur gi nga xamante ne jooy nañu ci problème mu ndengeleer suñu problème mu ngoogom bii lañ am Basiru Diomaye osere refo comme in ini sonayo in waa ngoogom. doxub ñaxtu bi nga xam ne dañ koo tere détachement gendarmerie moo ko tas moyante nag nemmeeku woon nañ fa nit ñu bari ñoo xam ne nii day danoo dogu ne seen suuf duñ ko bàyyee kenn bomb RFM Babacar Diouf. Abdoulaye Diop dafa mel ni dafa ne ñun waa Ngogom dañoo sonn lool ñu woyal euh, di nag ay tontu yu jóge ci euh, mairie bu Saint-Louis gannaaw ba ñu génnee ñaar fukki njaboot euh, ca bërëb ba ñu nekkoon di jugoob adjoint maire Saint-Louis nag di indi ay leeral ne yooyu lee njaboot daal ñu jëlee foofe ñu ne woon dañoo bokkul ci liste bi nga xam ne ñoo waroon a am wala bokk ci projet boobee war a jële ñenn ñi yóbbu leen feneen Latir Fall lay wuyu ak Ousseynou Diop. déguerpissement boobu commune bi initié wu ko yoonam nekku si mais lu mu rafetlu la lu mu ànd la lu dul di wax nag ñun mbetteel bi ñu gën am si mbir mi du dara lu dul ay conseillers municipaux nekk biir commune de Saint-Louis fii may wax sax bokk si mouvance bi amee Sénégal am inélégance bu dee na di entretenir ay propos yoo xam ni du dëgg am impertinence bu dee di wax xam ni safaanuwul dara ak programme bi ñuy wax comme si ñoom li ni ñu doon dund 2015 ba léegi intéressé programme bi ñuy wax ñu ni bii ni déguerpissement dem bi mu war ko yóbbu leen si logement yi Unu Habitat def au de Cheikh Bamba Dièye ñu jógee foofu amaat ay dégâts ñu jël leen yóbbu leen si école yi ñi woon si école yi bi école di ubbi si leen jëlee si école yi yóbbu leen si ay tente xaar yàlla wax dëgg fa dund ñu leen di massawu ñooñu bi kër yi daanu ñuy dem ñuy dem si tente yi dem si école yi di dem si bâche yi ñii génn ñii génn fan yi ñuy wax ñëpp mësuñu si bokk ñoo xam programme bi ñu wax ñaari cible la cible yi moo di ñi seen kër daanu wa ñoo amee jafe-jafe ngir mën a am ndox waral nag ba euh, seen activité ci wàllub euh, mbayub dër dafa daal di taxaw lool euh, seen nag ak i xar naka noone daal sonn lool ndax mar ndoxamul amul coordonnateur Pastef ca Doji di dina naqal bu la situation Amath Ndiaye lay wuyu ak Bayassane Diaw. dans la commune de Doji mën naa la wax ne la dëkk yu ci bari amuñu ndox li ko waral mooy que ne courant bi nga xam ne moo jugee côté Linguère dugg suñu commune amul doole bu mu mën a taalee machine yi forage yi lu mat juróom-benn dëkk wala lu ko ëpp yoo xam ne mënuñu am ndox jaaduwut commune de Dodji dañu respecté wul suñu tool yaa ngi yàqu nit ñi bëgg naan mënuñu naan loolu jaaduwul am réew kenn mënu ci dund sans ndox parce que mënoo ne mënuloo togg mënuloo naan mënuloo arrosé say tool say jur duñu naan loolu mënul nekk maa ngi lancé appel le président Ousmane Sonko parce que tey réew mi problème bu fi am moom la wax Ousmane Sonko moo taxoon ñiy xeex di sonn di ñàkk suñu alal di ñàkk suñu doolee ndax jëmmam ak jëmmi projet bi kon su lii amee war nañ ci mën a taxaw nu mu gën a gaawee maa ngi leen di lancé appel ministre bi nga xam ne moo yor wàllu courant bi na lijjanti situation bi parce que mënuñu dund sans ndox li ko dalee kaaj yi ñaari xol-xol yi ba dooji dooji sax am na change yu am benn groupe pour mën ci taqale am ndox ba poraam mënuñu am ndox ba wéelu bay mënuñu am ndox kon ñu ngi leen di tàllal loxo ci nu mu gën a gaawee ñii lijjanti ñu situation boobu ba ñi mën a dellu ci tool yi am ndox bëgg jur gi ñëpp nekk ci jàmm rajo askan wi. Birahim Seck bu Forum Civil euh, moom dañoo bëgg moo ñu moo ñu daal di fësal rapport inspection général d'État euh, comme ni ko OFNAC defee moom mi nag di coordonnateur Forum Civil daal ma ngi woon ca Richard Toll euh, ci gën a fësal projet bu jëm ci dooleel lépp lu jëm ci wàllu justice fiscale Birahim Seck ak Mamadou Diagne. bi ñu publier joxe information bi ne OFNAC publier na rapport yi. tey jii am na yeneen bi ñu def moo di ne boo xoolee bi président Diomaye Faye ne. corps de contrôle yi dem nañ gën publier rapport yi daanaka diir am na diir boo xam ne dox na ci diggante bi corps de contrôle yi ñu ko ci loolu nag ñu ne ñun jàpp nañu au niveau forum civil parole présidentielle dafa nekk lu sacré te képp koo xam ne bëgg nga réew bi dox da ko war a jàppale ci mu préserver la sacralité parole présidentielle ba tax na tey jii ni forum civil ne corps de contrôle ak IGE dañoo war a bokk ci ñi nga xam ne dañuy protéger dañuy sauvegarder la sacralité de la parole présidentielle ba tax na war na nañoo publier rapport yi nga xam ne moom nañ yoreel Sénégal yi ndax publier rapport yi mooy respecter loi te ñoom dañoo respecter loi comme tout un Sénégalais. ñu tëjee pàcc ba njëkk beeg Fatou ki fi nekkoon directeur général bu AGEROUTE Ibrahima Ndiaye lay wuyoo ni kii démb la daal di génn àddina foofee ca biti réew dafa doon faju Ibrahima Ibrahima nag am na ay weer tey kaka wóotu ca bopp AGEROUTE ma ngay wuyoo kii di Mamadou Ndaw RFM Sport. Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi lay dellu ziar Imam Seydou. wala ma xam beneen tur bi. de ëpp naa def denc ko ëpp waaw bañ a ah, <laughs> ak Teungueth FC di nekk si kaw di wéy ci championnat Sénégal di doxal dem fa dóor démb euh, Sonacos ba mu dajale loon foofa ca Teungueth se ndaje ma soo de caam fekkee nag. comme niñ ko nemmeeku woon ci juróom-ñaareelu bëccëg ba diggante ñaari équipe yi nga xamante ni dañ cee témboo woon te ji nag Tëngéej football club moo dugal benn bu képp bi am daanaka lu ëpp fukki match ak ñaar yoo xamante ni amul defet si terrain bi ñu xamoon ne équipe la boo xamante ni aussi dafay ñëw pour benn point fallait bi ñu téye bi bousculer leen mais bi ñu gisee ni aussi ñun ñoo moom bi donc ñu xam ne ñoom seen ay axe yi dañu xaw yéex ñu ne nañu jouer autour de la ci dugal ko mais li nga xamante ni nag moo doon gën a jafe mooy équipe boo xamante jeu à 10 parce que masaguñu woon ñun nekk si situation te tamit suñu ay séance d'entraînement masuñu def séance boo xamante ni day def si génnee rek ñun moom mooy fexe ba téye surtout nag l'adversaire xaw ñu si dimbali tuuti parce que je pense seen joueur offensif bi gënoon baax dafa amoon carton jaune moom lañ génnee dugal benn latéral gauche championnat bi mu toll nii waruñu sàggan pour équipe bu Sonacos bi itam góorgóorlu na ne naam am nañu ab rouge ci joueur bi di Stanislas André Sarr équipe bu Diourbel bi dafa gën a dëgëral taxawaayam ci ñaareelu pàcc jongante gi loolee nag leen di tàggat di Sidat Sarr rafetlu ko lool. deuxième mi-temps bi bi ñu ko entamé aussi wàññeeku nañu mais soo xoolee feeñu ça veut am nañu ay pexe pexe yooyu tey tegal nañ ko Tëngéej jeunes ñoom di leen féliciter ah, seen belle victoire bi parce que l'avantage bi ñoom parce que soo xoolee fukki a nekk nag ci. ci noonee kon Teungueth football club day daal di des ci bopp classement bi rawee juróom-ñaari poñ ñaari équipe yi topp ci moom moo di Jaraaf ak Guédiawaye football club beneen jogante ca stade Ngalandou Diouf nag niki alarba gi lay doon digganteem ak AS Bambey loolee ñeel la 16e de finale Coupe du Sénégal. ñu wax Pikine def fa daan euh, dafa doon joué ak waa Jaraaf ci Pikine waaye Jaraaf moo leen fa fekk ba noppi doo leen benn bal si dara Malick Daaf moom mooy ki tàggat waa Jaraaf bu Ndakaar

ko am nañu quelques situations de compte mais xale yi appliqué wuñu mais je pense que bu ñu appliqué woon tuuti au moins on aurait pu avec deux buts d'écart mais comme la wax football moom soo gagné da ngay sant yàlla amul benn victoire bu ndaw on va continuer à corriger regarder devant nous et préparer le prochain match incha allah. ci ndar Linguère doon na fa amal jongante géejawaay dañoo témbo kenn dugalul dara jàmbaar dem na daan ca Fatick jamono Fatick ñetti bal ñeenti bal si ñett la leen jàmbaar daal di dóor foofa Caroline fay moom euh, ñii diwaa waa Mbour ñoo fa doon jongante daal di nañu fa duma gore benn bal ci dara Thiès euh, génération foot Casa Sport dañoo tëwu ku ne am nga benn sëkk ak moroom ca Ngor itam Wakam daal na fa euh, ñàkk ndax Dakar Sacré-Cœur moo ko daan benn si dara ci wàllu Ligue 2 bi itam kii nga xam ne moo nekk leader bi léegi mooy Oslo ndax dafa daal di dem ja Louga daan fa njàmbur ñaari bal si benn. ci France léegi xam na ni Paris Saint-Germain mooy nekk champion bi gannaaw ba mu témboowee waaye mën Monaco daal dina euh, kon euh, am ay gàtt ay ay jafe-jafe ndax lion moo ko daan loolu mooy tax boobu ñoom ñu daal di kon dëgëral seen titre boobule waajal nag euh, seen wàllu Ligue des champions bés ni ci ay bis bi ñu nekk àllarba seen diggante ak waa Dortmund si demi-finale yooyu la Ligue des champions demi-finale yooyu sax nag suba Real dina laale ak waa na de Munich loolu kon moom moo nekkoon lu gën a fës ci wàllu Arsenal tam jàppale ne Arsenal démb dafa daan équipe bi di Tottenham ñetti bal si ñaar. Pape Matar Sarr jongante na ko waaye si itam topp na ko ndiiraan ndax dafa daal di dem daan Nottingham Forest ñaari bal si euh, dara alland bi woppoon ay bés bi yëpp nu weesu ba mu duggee ci kanamu baay ba teguñu si ay minute mu daay gi wañu nii euh, fa mu nekkoon jegegu waaye Idrissa Gana Gueye te moom it tey def na lu rëy ndax moom moo tax ba équipe bi nekk ca maintien Idrissa ñoom itam seen waa mm. équipe boobu di Everton ñu ngi ci di góorgóorlu te euh, ay bés bi sax moom Idrissa Gana Gueye fi mu toll nii dafa tàmbalee di am ay jikko mooy jongante bu mu def rek day dem làmb caax jàmbur yi. waaw day wane bu de. waaw solo la. tabarkaal jaajëf Diagne Malang suñu ñëw. xibaar yi ci RFM. xibaar eh, eh, ngi leen di nuyu mbokk yi altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril adduna bi yëpp di eh, màggal journée internationale de la danse maanaam bis bi ñu jegleel pecc. fii ci euh, Sénégal nag daañu amal euh, cérémonie officielle bi te centre culturel Blaise Senghor ci teewaayu Khady Diène Gaye ministre de la jeunesse des sports et de la culture euh, xew-xew bi war a tàmbali bu 10 heures ci jotee dinañ ko màggal itam ca théâtre national Daniel Sorano ak benn prestation wu ballet national La Linguère samedi ji weesu nag ñaareeli édition résidence d'écriture et de création de nouvelles bi ñu doon amal ca il de Ngor jeex na gannaaw benn semaine ñu doon weccante euh, xalaat ñi ci euh, bokk ci euh, lël boobu nag fexe nañ daal ba yeesal li ñu jotoon bind Salamata Ousmane Diallo ngir yeneen i leeral. yombul woon ca ndoxteel bi ngir kenn ku ci nekk ci ñi nga xam ni ñoo bokk ci bileeg atelier daal di mën a takkalikoo ak seen ay textes yi nga xam ni ñoom la ñu ëndaale woon waaye ci waxtaan ak wéccoo xalaat daal di nay tax ba kenn ku ci nekk ci ñoom daal di gis la nga xam ni moom moo la manqué woon te nga war ci mottalikoo ngay doo étudiante la nekk réalisatrice di wax ni am na xel bu dal ci tex bi nga xam ni dina ñibbee ak moom. boo bindee dara bu a koy jéem a gën a defar instant ne texte bi nga xam loo xam ni des na waaye lu ci bari moom daal parce que li ci baax jël naa ko denc ko li nga xam ne da cee bon ah ma jël ko tegee ko na leen ka doon tàggat di soxna Benga moom it daal di wax ni bëgg-bëggam ak yéene bi nga xam ni amoon na ko daal na koy mottali waaye tamit di rafetlu taxawaayu ñi nga xam ni ñoo doon bokk ci atelier bi xale yi vraiment def nañ li ñu war a def mooy ne ñu tolloo ci ñu beru liggéey beru nañ bu ñu tolloo ci ñu jël liggéey boobu tasaare ko tàllal ko nangu nañ ko dèjà boo koy bind da ngay foog ne bind nga lu rëy donc boo ñëwee ñu ne la li nga bind am na problème doo ko nangu au départ mais li ma neex euh, si xale yi mooy ne dañ ko nangu te nangu boobu moo tax semaine bi ñu mën a def li ñu def yëpp. waa direction du livre ñëwoon teewee si cérémonie clôture bi les résidence ñu ngi daal di xam ne ni dinañ daal def seen kéem kàttan ngir daal di gën a wóyal seen njàppandal Matar Diaw moom moo teewal directeur du livre. le dafa ne lu mel nii tamit jar na di accompagner su soobee yàlla incha allah du ñàkk ne yeneen édition yëpp dinañ ci taxaw temb viol violence conjugale ak yeneen ponk yu ni mel bokk na ci thème yi nga xam ni gën nañ koo waxtaanee ci bileeg atelier yi te fukki jigéen yi nga xam ni ñoo ci doon bokk daal ko ci yi ku ci mel ni ñoom ma jigéen kan Maria Sissoko Fatou Ndiaye ay Touré Mati Ndiaye Mamito Nakamura Mariam Polel Dieng Mame Diarra Fall Aram Ndiaye ak Rokhaya Ngaydo ñu koy jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig dajee ëllëg incha allah ci yeneen i xibaañal aada ci RFM CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ni may li ci yéene kaay yi dañ ca ci wàllu communication observateur xëy dinu fàttali bàkk yu gàtt fan yi fi nguur yi fi jaaroon ba fi yëpp ëndaale woon ci fàttali maître Abdoulaye Wade wàcce woon ci géew beeg il faut travailler toujours travailler encore travailler président Macky Sall naan la patrie avant le parti réew mi laata parti bi naka noonu guvernant sobre et vertueuse di yorin wu sell ci yenn mana président Diomaye naan jub jubal jubanti observateur ne yooyu yéene yëpp nag ci wàllu parparloo ak politique naka noonu séddoo ci lay mujj léppay ñëw dandal yëf yi ca ñag ba bu Sénégal nekk ci séminaire diblal ngir gën a tàggatu ci seen liggéey yéen leen dénk ne ay ministre le soleil des présidents Bassirou Diomaye fay ñeent la leen dénk nag mooy ngor yitte ci askan wi ak oyof naka noon it ak xereñ premier ministre Ousmane Sonko ba tey ak le soleil ne séminaire bi lu ñu soxla la woon ci source a président naan ca rupture di dogoog la fi nekkoon mu ngi tàmbale ci soppi anami liggéeyin moom président ne la muy xaar ci séminaire bi mooy mu jox jëwriñ yi xam-xam ak jumtukaay yi naka noonu yoonal gi war ngir jiite département ministériel dañu leen dénk mu ngi xaarit ci jëwriñ yi ñu doxale lañu fa jële yépp ne xam-xam ak i premier ministre Ousmane Sonko naan ci yéenekaay bi naam amul l'école bu ñuy tàggateeb ministre waaye bir na ko ne kenn ku ne ci jëwriñ yu nu boole ci nguur gu bees gi am nga xam-xam bi ak jaar-jaar yu lay may nga doon jëwriñ ji gën ci taarix gouvernement bi nag ak na muy liggéeyee ak ñàkk xam la ñàkk wormaal république wala yoonu bees wu ñu tànnal seen bopp laaj bi direct news moo ko xëy def ak bataaxal ak ndajam conseil des ministres bi ñu dul toftal li ma président ñamu fal bees ci fonction yu kawe yi naam ñu ne président président am na sañ-sañu fal ku ko neex ak fam ko neexee waaye ba fii yooyu ak pal ci njeextalu conseil des ministres lañ ko daa yëglee ci journal l'info moom société civile bi ñooy xamle ni yónnee nañu bataaxal njiitu réew mi ngir daje ak moom waxtaan ngir sàkku ci moom ak doxale ñeel pacte national de bonne gouvernance pacte boobee nag ñu fàttali ne la muy woote mooy acte garde ñeel institution yi di bànqaas yi kilifte fii ci réew mi gën a xóotal démocratie bi yokk état de droit gi ci réew mi ak it yorin wu sell na ko noonu gën a yittewoo bi keneen ku bëgg Diomaye fay maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias ci les écoles la ko xamle mu ne ndaje bi nag dara warlu ko lu dul jëmmal projet yi ngir ville bu Ndakaaru dana ko yónnee mu ne bataaxal ci fànn woowee na mu ko ni defee woon ak président Macky Sall ñu des ak Ndakaaru ak liggéey yëwoon ci littoral bi di tefes ak géej gi le quotidien ne Pierre Goudiaby Atepa moo ko xamle lépp luy liggéey ci digdigal boobe président Bassirou Diomaye Faye dakkalande na ko moom Pierre Goudiaby Atepa xamle lu ni mel démb ci dimanche ji ci émission point de vue ak ñi ngi ci RTS le quotidien ne bi li ko ca nar a fekk nag ci wàllu yoon ak wàllu li nga xamante ni mooy kalaame bari na la tribune ne président dakkal na saax-saaxe gi muy immeuble otel villa de luxe lu ne daa jeb bi ci corniche ouest bi yéenekaay bi ne dakkal gi nag lu Ousmane Sonko dige woon la bi nu yootu nguur gi leneen ci la tribune dib laaj bu yéenekaay bi def ne mbaadu Sénégal dafa ne ci danger ak ONU mbootaayu xeet yi fal ab ndaw émissaire spécial ngir ndakaaru yéenekaay bi ne la ñu tàmmoon mooy ONU réew yi nekk ci crise la daa yónnee ndaw yu ni mel ndaw li nag Ismaïla Ould Cheikh Ahmad la tudd yéenekaay bi la tribune di leen gën a xamale ak moom président Macky Sall ak xalaatu topp ko ci yoon ana ko xalaat lu ni mel kenn ci avocat Ousmane Sonko la maître Clédor Ciré Ly laas ne maître la mu xalaat xalaata toppee président Macky Sall mooy haute trahison ndax mu ne jéego yi mujjee teg ci bi nguuram di jeex professeur Ndiak Fall di pénaliste ne ko du yomb de lu compliqué la nar a doon monseigneur André Gueye évêque bu Thiès yéenekaay bi fàttali moom ay kàddoom mu ne jàmm du am lu dul justice dafa am justice nag ba observateur ay seede ñenn ci magistrat di attekat yi nga xamante ni yenn ci saay-saay yu ñu war a àttee dañ leen di jéemal liggéey ak kort ak yeneen am na ci sax kuy nettali ne bis am na détenu bu ñëw teew ci kanamam ak benn dàll beneen juge di nettali parent di way juru ab détenu ku ñu waroon àttee buy wër di laaj turu way juru juge boobee Oumar Diouf psychologue conseiller la moom la mu gis mooy ci yéenekaay bi di observateur wàllu cëriñ ak xarfa fuufa luy dalal xelu ki ñu war a àtte la ci kanamu tribinal mooy de défense la ay défense bi gën mooy di wax jàmm di ko def